tu sais naa def. oui ça va. permis de conduire ak assurance quoi. permis assurance. oui. qu'est-ce que tu fais comme boulot quoi boulot le job quoi qu'est-ce que tu fais dans ta vie. pardon. déggoo li ma la looy liggéey laa laaj quoi. lu may liggéey. oui. mais est-ce que c'est important pour ma wax la li may liggéeyee. ah tu oses dire un agent qui te demande qu'est-ce que un agent ne doit pas me demander lan laay liggéey. ah. xam nga agent lan mooy liggéeyam. Ah. mooy nga laaj ma ay papiers ma jox la. ah c'est à toi de dire qu'est-ce que j'ai fait li may liggéey c'est pas ton problème. ah comme ça que tu me c'est comme ça que tu un agent de la sécurité hein. mais qu'est-ce que c'est ah, sëñ bi yow laay waxal bul ma tardeel yow tamit. mais defuma benn defuma benn infraction waaw may ma tuuti wax nga ma ne ma frein à main bi baaxul ma wax la bouger oto bi nangu loo bouger oto bi léegi comme que léegi da nga ni dama def infraction et que frein à main baaxul mais léegi bindal ma attestation ma dem moi je parle pas à perdre quand même sa xoolal bu ma jëlee di ma jéem a jaay wax yu bare ak ay mbel mbel mbel man sa genre gi xam naa leen yee xoolal ay yer ay genre ay blanchisseur d'argent ngeen guddi gi ngeen di weer bëccëg mu wow ngeen weeri duwal ko ci marché bi man xam naa leen yow loolu ngeen di job blanchisseur d'argent nga yow tu es un trafiquant ah est-ce que sax doo trafiquant drogue ay mais xoolal fii sa genre gi doo nga fi jëmbat ay kër léegi yéen tabaxatu leen ah léegi xoolal tabaxatu leen da ngeen di ñëw xoolal bâtiment immeuble boo xam ne dix-septième étage wala vingtième étage ah commencé ko tey même pas un mois étage eh bi àgg na karole door lépp sa saar gee ko fi def tieson place sa dal sa ah maa wax loo waay eh? sëñ bi mais léegi dans quel monde nous yow lan nga ma xamal sëñ bi xoolal xam nga la ma lay bëgg a xamal mooy eh? bindal ma attestation ma dem man aw ma temps bu may perdre xoolal ay attestation yooyu ñoo fi dox xam nga li wax ji xoolal waa léegi lan nga bëgg lan buur ñaar keesu ardo kan keesu ardo keesu mi ngi nii sama poche nga jox ma loo a sama poche ma bala nga dem mënoo ko nga dem te bu dee attention bu dee keesu buur day seer de day metti jeew de. ah xoolal xoolal sëñ bi xoolal. garaaw am ñaata laa lay xoolal ñaata combien. keesu ardo ba vingt cinq mille dem mais comme yow sa zaar gi dama la koy wàññil quoi xam naa ni yoroo sa carnet de chèque ndax sport nga jóge léegi daal jox ma jox ma ok. الناس كمسة اه ولا يا غلط سجاري يا غلط بالله بر خملار غلط yéen ay gars garaaw yéen man dama leen a naan di attaqué seen i may gis nii xoolal façon gis façon bu dee dama koo jàpp. man xam naa nga ma doon laaj. waaw 10 000. kon jubóo nañu ah. voilà.